seere ne ko borom do war ay alifal ma won aras naa la fek te badal sëy naa alifal ma woon seere fal ko fek fofé ca xare indi wat ko njabootu seere gi fi tew ci gor ñi ak jigen ñep leen di siyaare di ñaan nak ci barke mam Cheikh Ibrahima fa lamb sunu borom may ñu dégg ak top di sakku nak bu baax ndigal señ bi jox ñu digal ci waxtaan wi ñu def moom señ fàllu nañ ko jëri fi ñu toog rek te muy ndigalam di ziaré wa daayira bu baax te jiital sama nuyo nak jëwriñ ji di ko bëggee bu baax baax di ñaan ci barké mam Cheikh suñu borom katanal ko ba mëna a yeggal lii def mu melni ni kon teew naa ci barab bu ma neex barab bu ma yàgg bëgg teew waaye suñu borom dogal ko woon may ziar baax sërif mi nga xam ni moom ma yaasin maam yaasin su ma ñëwee fii ñoom ñoo ñoo tax ma yëg ko xaadim daana ma wax bés bi daana ko dégg tamit ci Abdou Khalid waaye suñu borom dogalutoon ma mën fee teew di sant bax ci tout tank yi ni ñu jaayante ak cheikh ibrahim limal yok indi fi moy da ngeen ne ci barab bu doy war bëgg woné ci barab bi ko xamni xaju ci barab bi ndaysan mam yewen da lol ci yeen da ngeen ne ci barab bi di bëgg woné ko xamni xaju ci barab bi ndax yeen xam ngeen ki ngeen di dund kan la ndax xam ngeen ki ngeen bëgg dund kan la ki ngeen bëgg dund kooku moo wax làmmiñam moo wax ci làmmiñam Masamba Njaay wàqi mu ne ko faal mu ne ko du ma feeñal dara àdduna suñ Masamba Njaay wàqi ne ko faal lu tax doo feeñal àdduna dara mu ne ko ma Masamba Njaay wàqi doom ku mag jibril mag alxuraan mag weeru koor mag aadama jaamu yàlla ñetti junni ak sàkku ne adama ak awa déggoo ma de déggoo Cheikh Fall nee na moom ak Jibril ma ne Cheikh Ibra nee na moom ak Jibril alayhi salaam Cheikh Fall ko mag nee na maa mag weeru koor maa mag alxuraan maa mag asamaan ak suuf ah ma sàmm njaay wàqi aadama làq na ngërëmal yàlla ñetti junni at njëkkoo tëdd man Cheikh Fall ah ma sàmm njaay wàqi mu ni Fall mu ni ma sàmm njaay wàqi ndax xam nga ak karamatan mu ni ko jëril Fall mu ni ko ab labbe la ab rak akramatam labbel la tuddoon ab labbe la ma nga woon ci khuntuma ci sam khuntuma ci sam dom akama yag sam mo tax seet ma sàmm jaara bay bim ko woyene ne bi den ba sam yaram bi nam fal ken ak ci sa óom mu ne day xor xolal de adom doom ma sàmm jaara bay wax deug dom sama tur wa nga sam waaw mané waaw nañ ma dimbil rek bako fess nga denkal mako ba ndax fi ne manam tout tank yu bëgg Cheikh Rafal dañ may tangulo ci Cheikh Ibra waaw ndax Cheikh Ibra kuy réer di nelaw xamoo ko ñi xoti bi yalla yi dem ñoko xam waye kuy réer di nelaw waroo xam Cheikh Rafal te dañ ci lot ci xam ko kuy réer di nelaw xamoo Cheikh Ibra kuy réer ta am katan xot ci asaman yi ya wara xam Cheikh Rafal ba wara xam ku Cheikh Ibra ba wara mos ci ngëneel Cheikh Rafal yi waye dañ tout tank di juddu xamago dara di bëgg Cheikh Rafal loolu leneen la moo tax man ñii ñoo ma intéressé ñoom laa bëgg a waxal maanaam naam sax xaw ma ci kamay wax dara waaye ci ndimbali gi ma dimbali moom Cheikh Ibra ci laay wax ak moom déglul ki ma lay waxal kan la ba tax loo ko jéem ëpp na loolu foo fooy jéem a teg Cheikh Rafal nga koy jéem a imaginer Cheikh Ibra weesu loolu ngay lijjanti moo tax mu ne la lëjj ci man moo gën nga di ma lijjanti Cheikh Rafal nee na nga ne lëjj ci man moo gën nga may lijjanti xam nga lu tax nee na ba ma tudd akramatan booba subayratu mooy ñëw di ma laaj man Cheikh Fall bu subayratu dikki laaj ma mu tudd akramatan ne ci biir xuntu ma dal ni doom akamaa yàgg a wax ak yàlla ama ak yàlla naa wax ak yàlla lool yàgg naa digal sama borom muy def moom Cheikh Ibra yàgg naa digal sama moo tax mu ne akramatan ba ma ko tudd maa ngi ci biir xuntu su làmp ba jaaxlee dikk ci man xultu mi man Cheikh Fall ma wax ak moom mu wax ak man ma wax ak sama borom ndax sama borom nagul leen doom ak maa yàgg ak yàlla moo tax mu ne ku dul sëñ Bamba maa ko mag ku ma waxal doom nga ci man dal ni ko ma sàmm njaay wàq mi ne ko faal mu ne ko injil ak sabor ak tawreet ndax xam nga leen mu ne ko déedéet faal mu ne ko ay téere la ña ko yoroon bi ma leen koy dox booba jibril muzammilun laa tudd booba Cheikh Fall jibril jibrilu mu zammilun mu tax Cheikh Ibra tudd na jibrilu mu zammilun na tudd na akramatan moom Cheikh Fall am na fukki ndey ñett Seydou Ndiaye sukko jur wàcc na fu ne am na bàmmeel bu ne am na sant wu ne bari na fu waaye taxaw di jaamu yàlla ci dara jëy Cheikh Ibra la sukkandiku di jaamu suñu borom waaye déglu lan moo ko indi àdduna borom moo ko ne àdduna yëpp boot nga yonent yëpp yóbbu leen boot nga xut bu samaat yëpp wane leen ku mas a ñëw jamono teel nga ko cumbikaayam ba bagage yëpp mat na waaye man yàlla ma maa dem ba xam ne àdduna jaxasoo na ma sàkk ci sama jëmm loo xam ne soo bootee loola yóbbu ko wane ëmb ba mos ba jaam ne mos te biir ëmb ba yow Cheikh a dootoo ma jaamootee soo ma jaamootee dootuma la ko fay moo tax mu ne ma sàmm jaay wàq mu ni faal mu ni jàng mun ñoo ful la yàlla mu ne mu ni jàkk ne ma boo jaamoo duma la ko fay may jaamoo ndax ndax ayibu jaam ñi moo tax moom fa mu fekk tuuma guur yàlla yëpp teg fa ko yem moom daa fekk tuuma tege Cheikh Ibra Fall jël tuuma ànd ak moom moom li mu doon suñ ko waxoon kenn dootu jaamu yàlla ñëpp dañuy xëy di liggéey Cheikh Ibra Fall ba ñen bi soon ñu ne ma sàmm Njaay wàqi bu di Fall mu ne waa alxuraan waa àllaaxira liñ ma xamee su ma ko waa adduna xamee woon looy liggéey tëj ko sa ni ma waa àllaaxira xamee man Cheikh Ibra su ma ko waa adduna xamee looy liggéey ti mën nga ko yëg man Cheikh ni ma waa àllaaxira xamee su ma ko waa adduna xamee woon looy liggéey ti yëg na ko déglul ba muy jub Seydina Jibril nga xam ne li magi Jibril dala koy wan li magi Jibril lan lay wax Jibril jub na Mbàkke Kajoor yor xiinam di ko bàkk di bàkk ko fa njëkk gën Jibril bàkk na lu yàgg ko fa njëkk gën seerafaan ne ma jilleeg Jibril muy teggi tànk may teg tànk Jibril na ko fa njëkk gën seerafaan ne ko àddoom Jibril na gees mu ne ko xanaa foofa ngay wax kenn dafa newul Jibril ne ko ña nga fa nañuy fay nekkee te nga jëm lan xamul ñii ne malayku ma xara buur yi ñoo ma wàcc topp ma nan ma ndokku fal njaga ndax yàlla boo àggee mu leer ndokku fal njaga ndax yàlla boo àggee mu leer seera fal nee na su ma tegee tànk su ma tekkee kilul takk ci aras tël ñee a may teg tànk di teg kilul takk ci aras ñu ne malaaka yi bëgg loolu di sant suñu borom ci ñëw gi bi ñëw Mbàkke Kajoor di fa fekk Cheikh ma Bamba sëñ Tuubaa bët yi xonq toy muy woote ak jaayante moom sëñ Tuubaa bët yi xonq toy sëñ ñi waxtu wu jër bi xëyee ni ko yàlla nee na nga woote ab jaayante sëñ Tuubaa mbokk mi di ko laaj baa ak siin saa bu xëyee jibril ñëw fa ni ko yàlla nee na wax jàmm ñi ne yaay borom jàmm ñi waxal ni lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu zullata wa xarrawa inni ahmadu wax ko jàmm ñi waxal jàmm ñi naa yaa wuutu Mustafa yow sëñ Bamba waaye sëñ Bamba saa bu xëy di maslaak bokkam yi waaye kan moo ñëw Mbàkke Kajoor ku ñëw Mbàkke Kajoor ne faqal sama xana summi say dal def ko ci sa poos raamal sàkketel leen berleel ne leen bool bi kenn duut ci lekkati ku bëgg mu tibbal la kon bul ni sëñ Bamba moo seexal Seex Rafaal neel Seex Rafaal la seexal sëñ Bamba Seex Rafaal moo seexal sëñ Bamba Cheikh Ibra moo seexal sëñ Bamba moo fekk sëñ Bamba ci suuf lu ñuy lekkandoog moom di naarandoog moom di tëddandoog sëñ Bamba mu teggee sëñ Bamba ci suuf ko ci kaw di naarandoog moom di tëddandoog sëñ Bamba mu teggee sëñ Bamba ci suuf ko ci kaw mu aj sëñ Bamba ci kaw moo tax la mu xewoon ndax Kajoor su génnoon ci yoonu murit ñu nuru ñëpp la Cheikh Ibra indi Mbàkke Kajoor ci waaye li Cheikh dafa indi moo yees fekk kenn mës koo jàng ci téere yi da ngay dégg koo xam ne ñàkk xam Cheikh Rafaal moo tax mu naan maj sóob la maj sóob sëñ Mbay Sarr mooy maj soob moom lañ takk ay bëtam mu àgg nga ba yàgg jékku la Cheikh Rafaal fanweeri murit ak juróom-ñeent la fekk ci wi li fekk ci yoon wi kon moom mën nañ koo tëkkale ak Omar man la ba tey di borom Omar Omar Rasulullah da ko fekk mu dëpp ak ñaari Omar. muy ñaan sama borom leer soru omar ñu defal ñuko leer ga dugg ko bam ñewé di ray ci mustafa yor jassem lako leer ga charxat mu dugg ci lislaam mom ba degg seigne touba na la xaboo xafsinal al faru ndaa dil bi tasdil tas sa diinul Moustapha bi mu dafa leer di lu tax dañ ko sol leer ki nak da indal leeram ci mu ñëbb ak mak kajoor xolal bi mu ñëbb ak kajoor fekk na mu dajale maqama yalla yëpp yor ay galam ci magam fess jël ak yalla bii ñu Mbàkke Kajoor seetul sëñ Bamba waru ko day xamal jàmm ñi ne kenn du am yàlla te ko ndax mati fa Mbamba ma njëkk a dem te mati fa Mbamba xamul ne doomu jigéen ji du wàlliyu te Seex Faal ko wax ne du wàlliyu toggam toggal mati fa Mbamba da koo mos ni ko doom sa laax bee ko weex mun ko jàppoon naa ko li may togg ki koy ki koy lekk ñëwagut sëñ Bamba Sira tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexeem kooku du sëriñam Adama Gueye ak Maxtaar Touré mi ñuy wax naan ko njëkk a jébbalu booba sëñ Seex Faal bi ñu Mbàkke Kajoor amul ma ne boo xamee Cheikh Fall da ngay piré Cheikh la boo ko xamee da ngay pànk piré Baye Fall day riis pànk piré xam boppam am personnalité. ah addee Cheikh Ibra may leeral ni leen doomu adama yi ñooy waxe ñu mu leen neexe waaye Cheikh Ibra yu ñu mbàkki dem njëbbal amul booba sëñ Bamba sëñ daara la booba sëñ Bamba sëñ daara la dañ koy laaj ñu yàlla wax ci alxuraan muy bind ay baaki siin di yokk ay alliwe ñuy jàng di xam di del siwaat ci sëñ Bamba di ko laaj nan lañ koy bindee booba jébbal amul Adama Gueye booba day soppeb Serigne Touba boo xam ne bu mam noonu anti sele masaana yónni Serigne Touba Adama Gueye moo ko daan gàddul bagage da ko yónni fii ci ndar ci benn bitiku naar Adama Gueye moo daan gàddu bagage yi Cheikh Fall mi ñu mbakk joro jébbul am fa ndax boobu ba sëñ Bamba yónnee dañ ko naan mbind suba mi la ñuy jàng te mbind ngoon mi kon dañuy raw te fa nga yónnee daa sori kon mënuñu faa dem ki njëkk dem yónnent mooy si Ibrahima sa Jasaaka ba mu dikkee la ko sëñ Tuubaa ne jasaaka yaqilu ibrahima wa mawlaaka xayral jasa wal munaa daareeka awlaaka falam bi andaka indi suridan abadan fa sakkari oqa fi dunia uxra ko ko Bamba da koo sant ngir lan dem gi dem yonent bi mu génnee lañ ko ubbil lawul mahfuus mu tari baqara ba naasi kon njëbbal amutoon kan moo indi njëbbal ko indi jaayante Cheikh Ibrahima ñëw ci daara ji jaayante am ak njëbbal buñ nax doomu aadama biñ gisagul waa ji kin jaayanteegul ma ne bi waa ji ñëwagul ndax Kajoor jaayante amagul bu la kenn ndax bi Cheikh Ibra ñëwagul jaayante amagul te li tax nga xam ne Cheikh Ibra moo jaaxal doomu aadama yi ko xam way yi sëñ Tuubaa way Ibrahima Sall Gassaaga mool nañ ko dañ ko waaye way yi sëñ Bamba way maam Cheikh Fall kenn móolu ko te mu ne kii ne daa leen yónnent kii moom daa dem yónnent bu yàlla kii moom daa matal ci yàlla yàlla ne ko waneel ma bamba ndax sama biir mat man yàlla ibrahima moom matal yàlla moo tax yàlla moustapha ko gënal waaye moustapha xaadima ko gënal waaye xaadim ibrahima ko gënal xaadim ibrahima ko gënal de ndax bi ibrahima ñëwee la leer jaam ñi ñooy lijjanti ku leen gënal waaye xaadim moom ibrahima ko gënal moo tax ibrahima moomee sëñ bamba da ko way daf ko ne billaahi wallaahi talaahi ibrahima far kirimtul maqaama dunya wa jël na ko billaahi wallaahi talaahi Ibrahima Fall samsu kullu makkaan duniyaa wa uxra wa ba sax sëñ Tuubaa nee na makkaan mu Cheikh Rafal accès gu leeragul xol bu mu tabbee gu leeragul ku ut yàlla te amagoo ko leeragul kuy dem ci pays yàlla dañoo goog moom sa mbir leeragul Ibrahima Fall samsu kullu makkaan sëñ Bamba yemu foofu de mu ne ko baabulaahi baabul jannati baabul suyuuxi wal ahmadaa imaamu kullu muriidillaahi imaamu suyuuxi ahmadaa bahru ulumi wal xilma bahru ulumi wal iqma bahru ulumi wal xitma dal ne ko هو اسم ابراهيم فال ستروي هو هو اسم ابراهيم فال مفتاو كل جنة البال بسام سنتواني كو بنت اجل يب ستروي كو بنت بوكي تخاو ترو مام سي فال هو اسم ابراهيم فال مفتاو كل جنة البال بسام سن بما تجوي لكو اللهم صل على سيدنا ابراهيم فال شيخنا خليل الله الى القبيب الله motax mune ma sam ndjay wakki mune fal mune adom jam ni mune wax li xew dom mune waxe li xew duñ ko talta luñ ko man ma sam ndjay wakki mune fal mune dafa dama fal ci ay teggin la koy waxe lamb yalla aljuma tegg dom gaaw lu xubu lo dibe la tass ma sam ndjay wakki mune fal mune ay yalla sang borom dala ca samba gi ibnu fal jere jef ibnu fal jere jef ibnu fal jere jef bam noppé momu du say mako aw señ bamba ci top ma faraw du teggin sera faal neena ma faraw du teggin motax lu melni Cheikh ibrahim borom mosu ko bind yalla mas ta am lu melni Cheikh Fall ba mu tuddu ibrahim dem ay dal la sol ay dal dal ànd ak malayka Cheikh Ibrahima ba mu tuddu ibrahim dem ay dal la sol di ànd ak malayka melni yonent mas ta sol dal ànd ak ay malaika Cheikh Fall rek mas ta sol dal daan and ak Sidna Jibril moo tax ba mu dellusiwaatee fi ay dalam seigne Bamba la ma sumil Cheikh Ibrahima mas ta summil dàllam ku seigne Bamba su ko defee Baay Faal yi xam ni Cheikh Ibra ko gëm dangaa kamaal mat nga ku na ta texe du gëm Cheikh Ibra ku yàlla namul ci yow dara doo gëm Seera Faal mooy lan kii ñàkk ba noppi ñàkk ko ñukk ko ne ko ñukk jébbale ko boole ko ay jooy ndax bëgg yàlla la Faal ne lii lan ut si tànn naa feq yi ci lislaam moo ma tax a jóg tam naafiq ci islam moo waral maam si dafal ñëw jamono ñëw jamono ngir tànn naafiq yi ci islam ndax sax ci julli ak woor ak jàpp te naafiq du tax nga am may yàlla Cheikh Ibra ñëw di génn naafiq ci islam bu naafiq jeexee jaam ñi texe Cheikh Ibra ñëw tànn aw ñàq wane ko kon ki jëriñ jaam ñi tey ak ëllëg mooy Cheikh Rafal ki jëriñ bindee fi tey ak ëllëg mooy Cheikh Ibra ku yëg ak ku bindee fi nga soog a ñëw nag. tek fe batinam ak démbam batinam ak démbam mo Cheikh Ibrahima nga set ñu ñu ñëw Bamba galon yim yor kuy bur ci senegal maamu Cheikh Fall nga kuy bur ci senegal maamu Cheikh Fall nga bi ñu ñëw Bamba xiifut marul raflewut bi ñu ci sëñ Bamba garmi la du won jam ay mam ñu lan tak bu gàcce yi Cheikh Fall ma nga bok ci si nga ma si bi Amadou Fall Seen Njaay burum jëbi càggee bay dal dégg Njaay man fama daw mu ci mul ibra yasin daw mu ci mul seen seen dala bu len ci roqé fo mo la seen fal bokku garmi la doon ba paré germi ba paré yor ay bagage sam sogo ñew ram seigne bamba bi mi ñew ci seigne bamba daw da xalab sesam ñaari ses ses bi mu toge won ci yalla ndax neena sesu yalla ma ci bind la ilaha illallah ba sa borom man kep na nga togandol ma sam ngay wax sesu yalla ma ci bind la ilaha illallah motax ses ma taxaw sidima dem la xam yalla motax mune mu ne ma saw na njaay wax mune fal mune adam kuma tal ci yalla bu nopp yalla jeex Cheikh Fall ngi ne bo ma tal ci yalla bo nopp yalla jeex boo lijjantee ba tal Cheikh Ibra soko tal ci yalla bu mu jeex bu jeexee yalla jeex motax Cheikh fal moy kan Cheikh lu moy kan nan la jéggale bindéef yi ak fan la ñu sàkku leen jéggal moom Seera Faal wax na loo xam ni lu doy waar la loo xam ni catholique yi sax génnuñu ci na loo xam ni lu doy waar la loo xam ni catholique gi sax génnuñu ci catholique yi waxuma la jullit yi waaye catholique yi génnuñu ci xiiwli Seera Faal waxu la julit gi waye catholique gi génn ci xewli Cheikh Layon Fall yi njaarim gi la xey takusan ba cëg gor yalla yi bu ñu dem ci yalla gudd la dem takusan la Cheikh Rafal xotti bët bi asamaan yi sar ba sarale romb du romb mulkoog ko romb jëbbaroon romb kursiwur romb aras mom Cheikh Rafal dem ba tassere fek fa juróom ñaf ñu ni malaka yo xam dañu tim na man diko nan cheikh rafal sama sang ba sëñ bamba lay màjjal malayka yi ne ko xamu ñu sëñ bamba mu ci wat di joy ne sëñ tuba malayka yi xamu ñu la sëñ tuba ne ko foofu boo fa delloo muhammadu atala fa tuddu muhammadu ata moy sama sëriñ cheikh sar sarale dellu ci fofé ñu ko muhammadu ata moy si kon danañ barku sa jëm ji ba jàppee yaram war di mar xar yere di lek fam ngañ la di lek si leel gañ doon nan nan ko bëtt tuppi esmaan yi yi ko mu dem ba tassere jaar ci mbedd mo yi ko bi la ne tëb señ sëñ Tuubaa Ibrahima li nga gox lu mu doon mu ne ko Mbàkke seen leer gandan nan la nan mu ne sëñ Tuubaa ne ko boo ko jant bi ndox dootu wacc Ibrahima soko buso ci suuf tax dootul sax waaye yow serafal na nga xamni soko buso ci bir geej gi jël dootul amati señ a señ Bamba doom fan la koy guxu señ tuba ne ko sëñ Tuubaa ko Ibrahima buusu ko ruuy yi ñu gëm rusul la yemal xam ñëpp dama jara dabay maam sëñ Njaay sóoru maam sëñ Njaay bàyyi laa la faal ak yee maam Cheikh Mor Fallu ku yaaka seefal di ko taxaw jeñu mam señ ay ma fallu buusu ko ruuy ñu dem àjjana ma ne buusu ko ruuy la wax de waaye yàlla buusu ko ruuy ñu dem àjjana ruuy la ko seefal buusu ruuy Maam Seex Rafal yaa leer gi mu jëli tastaree moom Seera Faal leer gu yooyee Seera Faal guux sëñ Bamba ne ko boo ko buusoo ci kaw ndox du wàcc boo ko buusoo ci géej jën dootu am Ibrahima boo ko buusoo ci suuf gàncax dootu sax sëñ Bamba fu ma koy buusu mu ne buusu ko ruuy ma ne loo fi dégg nit di ko yëg maam Seer ko yëgal dama bëgg ngeen xam ne alxuraan di ngeen di jàng yëgalu leen yàlla alxuraan bu leen doon yëgal yàlla yëgal ko gars yi leen jiitu woon ma ne bu leen alxuraan doon yëgal yàlla. dem yëgal ko gaay yi leen jiitu woon gaa yi leen jiitu woon junni at danañ ko jang alxuraan bi ak ci yalla tay golo bu ndaw ngi dégg man la dama bëgg ram sama ndey ak sama bay ak dama bëgg ram sama askan Cheikh rafal mo moo yëgal yalla Cheikh Ibra mo def leer sol ci ruu yi ruu gu ñu nekk di namm yalla xana xamoo ne serigne ru la am serigne yàpp yalla am sa ndey ak sa bay sa serigne yàpp yalla lañu Cheikh rafal moy serigne sëriñu buru accident ba mu febar ci Fall ci man dara motax la bu buusu roy la Cheikh la buusu roy motax jam yi ak yalla motax ku nopp yi Cheikh Fall nopp ak yalla mo waral bay Fall di sar mo waral bay Fall di tepp mo waral muy jaxaso ndax ak yalla set ak yalla sa su nek bo yobul te ki julli day bay bo waxtu julli jot ma so a ak yalla ana salata tafkha anil fasail murkan day dak sal taway won sukula akbar tudd yàlla ku ne mag kon ki dah daa ilaha illallah te soo ko waxee benn dal di sabtu bi yàlla yi ñu tabaxal la immeuble ci àjjana kooku bokku

Cheikh Ibra ko xamle luma ma taxam rek ba ci kiñu tuddu bis bi bis bi kiñ ko tuddu muy Serigne salim Mbacké Serigne salim sax Cheikh Rafal ko woné fukki at ak ñaar la am di jang alquran ci ñaar dégg mam Cheikh Rafal ci penc ma mu ni ma ngi siar ji bay Cheikh Ibra and nak fukki dong ak ñaar mom Serigne salim ñew ba jup penc mi sëriñ Cheikh Fall yónni mbay ni ko yaaram mbay mu ko Fall mu ne ah doom sëñ Bamba dama gën a si yaaram mu ni Fall mu ne ah xet gaa ngi xëy yaaram xet gaa ngi penk xet gaa ngi sow yaaram mu ni Fall mu ne ah lii xëeñ sëñ Bamba la yaaram mbay mu ni Fall mu ne ah doom jóge wër ma jotaay bi sëñ Bambay xëeñ yaaram mu ni Fall mu ne ah doom ñoo kaname waaye ñi si kanam ñoo gannaawee te boobu sëñ ba ci gannaaw lay wax ni moo kaname suñu yaaram mbay ko sa kat daa mel ni or ci suuf mënu maa xam li ngay wax bi maam Cheikh jógee daa wëndeelu serigne saliw ne musuma ko gis musuma gis ba mu wëndeeloo dala kes serigne saliw teg ko ci mag gi ne wax nga dëgg de adom bis sa gan doom serigne bambal a wax nga dëgg de adom bis sa gan doom serigne bambal dal ne bamba ne secret yalla yalla yang ci dënd bi ku dox yok ku liggéeyal gan dal ne ci serigne bamba mo xarale li ko man na xar bopam ñaari gal gaal jëm di serigne bamba jëm di saliw man ni luma taxam cheikh fa ko xam luma taxam cheikh fa ko xam mu tax bu la kenn jaay wàcc alxuraan ngay bay fal ñu lay jaay wàcc alxuraan ba ñu lay jaay jàng wàcc alxuraan wàccug alxuraan ko gën a wóor wàcc alxuraan wàccug alxuraan a wóor nit dañoo wàcc alxuraan dañoo wàccug alxuraan dañoo wàccoo ñun ak alxuraan wàccuñu ko dañoo wàccoog moom Cheikh Ibra Fall nee na mag sëñ Bamba ban ko mokkalee wàccu tax sama waa kër lañ koy wàccoo duñ ko mokkal dañ koy wàccoo Baay Faal boo gis wàcce na alxuraan soo ko yëgee boo ko yëgul te Cheikh ci ñun de wàccam gi jàpp doyul na ci ñun ku nekk nag soo ko royee ci pas-pas ma ne ku ba noppi nekk boo royee maam Cheikh Ibra Fall ci pas-pas noppi waxal ma Baye Fall mu dimbale ma waaye sama yaram day daw ci dóoru yi na ma dimbali ba ma waxtaan ba noppi ndax man sama yaram day daw bu dóoru dootuma mën a tee wax na ma rek ngir ba mu noppi ndax man Baye Fall ku ci dóoru daa mel ni sama sama jëmm jigéen dóor fi may delloo waxtaan wi xam nga fan la ñëppay roy Cheikh Fall ñëppay roy Cheikh Fall waye kenn ngeen dégg Cheikh Fall roy ko ni tax bay Fall wara am ful ak fit ñëppay roy Cheikh ba kër goo déggul Cheikh Fall réelul ku bëgg na ru yalla dara da ngay am dalay Cheikh Fall tarix bu dégg am na bay Fall fi ne fo dégg rek am na bay Fall Cheikh na ñepp ko roy waye Cheikh na ku muy roy mané jangun ci téré ku Cheikh Fall di roy jangun ci benn téré ku Cheikh Ibrahima roy man gis naa ay góor yalla yu séré ci maam séré faal te gisuma ci bir ke señ bamba ko cheikh na séré cheikh na ku ne bëgg lim yor señ mat jo paxa góor yàlla gu mag la mat paxa mbàkkeen mbosoo ko ci xam-xam ni la su gisone imam anbal dana ko laaj xamut cheikh paxa ko menjopax mooy bind waliw tàmbali sa bopp cheikh menjopax moo leen def bu sëñ tuba wootee mu ko wuy dem sawara te bu ko sëñ tuba ne menjopax àndal te wuyoo ba naan ko looloo mën a ne ndax su ma ñëwul kenn du texe te bu sëñ tuba ne sant ko buntu ko buntu yow ya kon mbàkk jotawoo yàlla dara yow la ñuy sant cheikh menjopax moomee réer na ba nopp jang ay lawrata mu nopp xotti pii yàlla ya yii dem ba ba ñu ko yow mën bax ko ak ci yalla nga te gor yalla nga way mbedd mi nga taxaw mu ñaan ñu ko ki ngay seet bu la fekkee fi pënd bi képp boko ko gisee seey pënd bi rek pënd bi seer afaal soo ko gisee seey waaw waaw mat na Allah Allah Allah Sey Ndiaye bay Moustapha Fall ak Sey waaw waaw laay laay laay Sera Fall ñun ñëpp aw ci jëm Cheikh Ibrahima Fall bay maam Sey Ndiaye yaa bay la Fall doomu Cheikh Modou Fall ci Cheikh Fall déggoo ma de Cheikh ma Diop wax nee na pënd ba lañ ko wax pënd ba waxuma la gis mbedd ma waxuma la gis pays ba dañ ko ne pëndub Cheikh Fall comme fekk fi nga taxaw day seey mbirum seera faal ku mu fekk fi nga seey mané ne lu seex ma jóg ba def moo ñàkk ki ñaan suñ ma jóg paxa ñak ki ñaan mom da del si fii waaj ba ñek fekk sëñ ba ma njëriñ mbolo nit bari ke sëñ tuba kan mi yëpp cheikh seex ma jóg xus xuus wut sëñ tubaab déggoo ma de cheikh ma jóg paxa nee pënd ba lañ ko wax pënd ba waxuma la gis medd ma waxuma la gis pays ba dañ ko ne pëndub seera faal comme fekk fi nga taxaw day seey pëndub seera faal comme fekk fii nga seey ma ne lu seex ma jëw paxa def moo ñàkk ki naan suñ ma jëw paxa ñàkk ki naan moom daal del si fii waaj ba njëkk fekk sëñ ba ma njëriñ mbooloo mi bari kër sëñ Tuubaa kanam yëpp toog seeg ma jëb baxa xuus wut sëñ Tuubaa joxoñ sëñ Tuubaa ni ko Mbàkke ndax mas ngaa maa xam ci wax lu dul noonu sëñ Tuubaa da ko diidé mu ne ko ma jëb baxa mii moo lay xamal ne la su dëgg la dekkee dina def kuréel juróom-ñaar seex ma jëb baxaay wax de nii la su jin la defee kuréel juróom-ñaar mu lay ko def kuréel juróom-ñaar doomu aadama def kuréel juróom-ñaar suñu borom fop nit di tag ndax maqamam ak damam ak dara jam suñu borom fop nit di tag diko di di kañ doomu adama ci magay ba doomu aadama bëggut dem aljana tag ma suñu mom tag mo fi gënal mu dem aljana ku ne wone sa maqam ak sa daraja góor yàlla yi ku ne wone la yalla defal sëñ ma do baxani ni ni tuwa tubaa bëgguma dara sëñ tubaa ne bari ko bëgg ba ana lo jubi ci lolu mu ne ko màkk su booba bëgguma fa dara len képp la bëgg muy cheikh rafal bab mu jine mi nama gàcc loxo ne ma jëpp sama xar ga mu jëpp sama xar ni kep la bëgg bo liggéey ci tuba la bari ko mu jëpp xalo wax mu ne fal xarit ak man bo liggéey bu nit ñi ndamu nama mom cheikh rafal gàcc loxo ne ma sama xar ga ci tuba ni ko mu jëpp wax ndax da nga seen pënd ma déggoo de mu jëpp wax ndax da nga seen pënd ma hmm, ndax mus mu jëpp wax pënd bi ko ko seen def ni yow ndax mos ma jëpp pëndam ba ko seen def ni yow pënd ba laa wax de ma ne yalla yàlla yi ak ci wuñ ci buntu ba pëndam ba laa wax gay ni ci ko seen am kenn ko nam ci yalla ku dem ci pays yalla ku seen pendu seer kenn ku ci seen pendu seer new ci gay mo tax seen daama saan ni ko ibrahima sa njaañ borom njaañ dani sëñ tubaab ñetti at laa la mag ak saayir sëñ Tuubaa ko mu ne ko ñetti at laa àgg ci yàlla sëñ ko sikkiwul mu ne ko ñetti at laa la xam sëñ Tuubaa ne ko sikkiwul mu ne ko la ci maqama yàlla moo xam ne dañu mel ne ku dul ak fu mu rawee ak fu mu jëlee maqama may jaar ci buntu bii sëñ Tuubaa ko ma Ibrahima Sall Njaañ mu ne ko faal mu ko borom pesum karam borom mu dem màkk fekk fa maam Cheikh ti mu tàng jër ba mu ko séenee def tur Ibrahima Sall Njaañ doom kàddoom pesum karam dom borom ko fañal bopam señ bam mo la dëgg Ibra Sar Njaañ mu ni ko faal mu ni ko dom xana xamu ne butit ak baatin na yam du génn neen butit ak baatin du génn neen butit ak baatin du gennu neen ibrahim sall Njaañ mu ni ko faal mu ne ah, doom na ngay laaj ma talaat doom nañ bay bo lek suñu borom la jënti ko mu ni ko faal fi ci aduna lay leray dama bëgg xam kañ nga jëblu ndax man kenn jikuma jëblu Cheikh Fall dama gëna gëm gëna nango nangoo ndik jëblu ndik xam sëñ Bamba mu kenn jikuma jëblu Cheikh Fall ni ko adam Sall jëblu adam doom jëblu mu ni Cheikh ñetti wër la am sa biir ndey sëñ Bamba gëna sa bay sa jaañ sama lay togg rek tak ko reeraguma sama ndey reeragu dama gën sa biiru ndey jébbal sëñ Bamba sa bopp delluwaat sa biiru ndey Cheikh Ibrahima Sall Njaañ ko wax ñetti wër la jëb sëñ Bamba ñetti wër kep ci la jëb sëñ Bamba bopam ci biiru ndeyam moom rek ma sa wax ak Cheikh Fall lu tey loolu Cheikh Fall Ibrahima Sane Njaañ ah doom yaay jàmbar diggante ndox ak deret doom ma tegoo dara nga xor sa bopp jëmba sëñ Bamba Ibrahima Sane Njaañ doom yaay jàmbar waaye Ibrahima Sane Njaañ ba may jëmba sëñ ko déedéet Fall mu ne ko ba may jëmba sëñ ay ba san doon doom ah doom ba may jëmba sëñ Bamba sama bopp doom ndey bay xewul ma ni bu ndey ak bay xewee la gaa am sëriñ bi ndey ak bàyyi xewee la jàmm ñu am ba saa borom bindee asal aadama amul asamaan amul la Cheikh Rafal jébbalu boppam sëñ Bamba moo tax muy abóori jàll mooy bàyyi góor ñi ko kon ku neex ak ku naqaree Cheikh Rafal mooy abóori jàll démb la ko turoon démb la turoon abóori jàll démb démb ci asal la Cheikh Rafal turoon abóori jàll tudd ko ci Ibrahima Xalilu Laay yi ñëwaat ci sëñ Bamba turoon abóori jàll njaareem gii mu wér كن شيخ لا ابو رجال مو تخ لي خيو لغي ديغا شيخ ما كوكو ديف با فاتو كين مولا تي تابي سوار اك فو مانا بوك اك كولا مانا جور كو ديغا سيرفال با فاتو كين مولا تي تابي سوار شيخ مال عين نينا من شك في ابراهيم فعل وفي تاريخ الكمال إن لم يكن لسي الجلال إن آخر زابر قد نكل إن كيما رحم كيما فك سما كو فك مشيخ لاي مفال كو سكي ساك ميرم كي توبو كو تي لير يالا مي بروم جالا نينا تاب سوار بي تاب سوار لير نان تكي دوكو سكي ساك نينا كو تخ مون شيخ رفال كف الرجال شيخ رفال عندك الكمال وصلت حق الجلال ابراهيم فال ما يسال moo tax Cheikh Rafal mbiram doomi Cheikh Rafal képp xajul ci kaw suuf bagaas yi maam Cheikh Rafal doomi Cheikh Rafal ay bagaasam xajul ci kaw suuf mu ne bagaas yi doomi Cheikh Rafal képp xajul ci kaw suuf dama leen limal juróom-ñaari doomi Cheikh Rafal yoo xam ne kenn ku ne ak baat ba nga xam ni moom la seen xar wax ci yow ñu ñuy woowee ay doomi Cheikh la képp Cheikh Modou Moussa Fall Cheikh Fall nee na dem naa ci yàlla di ko ñaan suñu borom téeméer at ab jam jotewul suñu borom gàntal ma ma dellu ñaan ko ko ñett téeméer at suñu borom gàntal ma xaw ma yàlla day bëgg ci man xaw ma yàlla damaa jépp jox na ma Moussa Fall waxu doomi seen faal xam nga fu seen faal fek seen muru mel faal ñu ne benn diwaan lay fekk seen muru mel faal mu doon ko taaru tëdd ci piliam ci mboon ko joow ma laaj si mboon ci kum doon mu ne ko ki liggéeyal na ma nopp ba di si waat tëdd ne noppalu Cheikh Fall nee na maa jaayante ak sama borom muru mbenn bayiko ko àjjana fekkal ma àjjana motax tax jaratu ila gënt ko defal Cheikh muru mbenn Fall janatu ila janatu lañ ko dox jaraw lakk mas naa la fekk ca Badar sëñ ko fekk foofee ca xare Badar indiwaat ko li ko yaay alifal muun ëllëg yoonu xam akbar bokk ba génn wu mu fàtte yow laa koy laaj seera fa la Badar la ko jëlee andi ko fii nee na Cheikh Mor Talla Fall sekkal yàlla la ni nina mako dagan sa property bu ko seigne bamba doomi seigne bamba way mako wonal seigne bamba nga ñew cheikh abdou fal khadro jili yambat borom soko waxe kep ñu taxel la gone bu ko waxe mag so mag yaram musa askan so saxo wax jili fal yambat borom rek gone ko wax da ngay mag te bo maget dibli sa nek sa bay abdoulaye khadro jili yambat borom nga ñew ci sir asan fall cheikh dafa neena dama ko tudd ba ngon jot mo nak seigne ma ñay job and seigne ma sama ñay waqi and seigne ñay roqé and seigne yara may ndé tuubi damay tuubi adam damay tuubi ke seigne bamba dama tuddu gan seigne bamba yegul damay tuubi dama tuddu gan seigne bamba yegul damay tuubi seigne ma sama ñay waqi ne ma ya bu cheikh dafa térfé bu gisé seigne touba du jégg du gis waye bu térfé ci kam seigne bamba sëñ ma sàmm njaay wàq mooy ron loxo yi ci suuf téye ko ndax mooy aw xeetam sëñ ma sàmm njaay ma ca wàq laay wax waxuma ci ndigal de sëñ ma sàmm njaay ma ca wàq sëñ njaay roqee mooy wax li sëñ bamba ndax moom daa amoon fasaaxa si dafa def ci moom xusuusiye def ci moom fat ko def ci moom wusul moom kër si ci boppam lu sëñ bamba wax da koy xam kooku moo leen wax ak sëñ Tuubaa waaye yaram bay dara kermet waxi sëñ Tuubaa ma mu leer ba mu sëñ bu seexoo jummee moo ko naa sa sang ba nee la nangam sëñ Tuubaa tëll kees ni Ibrahima def yàlla ba ko tuubal Ibrahima ba si ba koy tuubal sëñ Tuubaa wax roqee neen sëñ Bamba ak gan daa ñëw ca kër gi moo tudd ko te waxuma ko sëñ Bamba sëñ Bamba ne ko gan kumu mu ko sërif bu weex ba tàll fayoon wul su xànjar wa def ko jaas tëgg ko jaas leer nañ ba mu ñëwee xare badar la badar tas sërif bu weex boobu itam sekkar yàlla ba daa ñëw mu tuddi ko ko sëñ Tuubaa ne ko da nga ko tuddee am day moom da ko tuddee am day moom moo tax Cheikh bu ko takk fenn ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi Cheikh Fall du ci moroom ko yàlla bind nii la bu sëñ Bamba nee tool may dig wi boo doxee baax ci man sol bi waaye ba ma génn génn tool bi te boo gëmee maam Serigne Fall bu lijjanti Baye Fall na dëggal na gëm na am fulla na am faydam personnel ci boppam li nekk ci yow maam Cheikh daf ko ci ki kenn ko tuxal te lii ma lay wax nan laa la koy nettalee diggante Baye Ibrahima Thiam ak Serigne Fall Baye Ibrahima Thiam maam Cheikh da ko defar ba mu àgg yabal ko Ndakaaru gi nasaraan di ko xool ba yàgg. ne ko nañ jël sama kër nga balal mako ma jox la malatu khalis ba bi dama cab ak kër nasaran bi nasaran bi génn la war ver ne ko soo tëdd man maray la wo marum nasaranam jox ko pistolet ba ne ko su tud la man nang ko ray ba bi dama cab ne la ma jàq ndax lutax ma jàq moy dama bëgg a gis Cheikh Fall te nasaran bi damay ray te bëgguma faatu kon ni may def moy sëy mom rek te wat Cheikh Fall dan ne ko ndax man nga ma may ma tab ci wanag wi nasaran bi ne ko waaw بابنا ما تعمل ما راح سوونا قوم سب وصينا فلنا قفل لوجا وخبنا قوم فعل بمن نسرم براي بابنا ما تعمل كلام جاب ما جاه سوونا نسرم ما نسرم بجوك ما نتخلص من يوم جاي عندك سيرفا شكرا يا سيرفا الله لي وخ شيخ ابن ركب منا عقب جام بموت كدل من سيرفا الامو كرانيا بابنا ما تعمل اني مرت بتكو تكرم مام شيخ مام شيخ ابن مرت بي ديكو خول بيان ابن ما تعمل ah doom da nga mooy yàlla la da nga yàlla akum nasaraan Ibrahima Thiam leer yàlla ne ngay fo boobu nasaraan ci yow jox la xaalis leer de si ko wàccee a fo muy jooy ko xool ba yàgg Ibrahima Thiam ah doom da nga mooy yàlla la da nga yàlla akum nasaraan Ibrahima Thiam leer yàlla ne ci ngay fo ba mu nasaraan jël ko ci yow jox la xaalis leer de si ko ci xaalis Ibrahima Thiam yaa mën a foog muy jooy rek si nga ne Ibrahima Thiam mu mu ne ah doom mbaam mbaam lay sëyal Ibrahima Thiam mu ni faal mu ne doom sël mënut a siggi mbaam ne wal ma ma dem ma laaj ko Aysatu nu mu def ak Aysatu nu mu def ak Firawna Cheikh ma dem ñëw Cheikh Rafal ne ko Aysatu nu mu def ak Firawna mu ne ko Aysatu mu sëtëdd ak Firawna xaysatu ëllëg soxna Moustapha lay doon. soxna yonent bi lay doon mës a tëdd ak Firawna mu ne Ibrahima Thiam loolu mën naa ne jigéen mës a tëdd ak borom këram te yàgg lool mu ne Firawna mës a laal soxnaam lu tax saa bu ko bëggee teg loxo su ma ndawalee fa mbaam mbaam lay liggéey ba mu àggal tëral ko fa jël Aysatu at ca kaw Aysatu yàlla doxal at ci kaw fab mbaam liggéey ko Firawna mës a jaxasoo soxnaam mbaam la daan jaxasoo ba asamaan set yàlla dàq mbaam bi wàcc Aysatu ndax Aysatu boo liggéey yonent bi lay dëkkool kon kon Firawna du ko laal ndax Firawna daa weddi yàlla ci dafa la ni ko Ibrahima ma cham ni fal mu dum doom dégg la fal mu ni la def de duma yalla way ma maa mom ay melokan ak ay jefin adom yag nañ ko nduro ndax bay Sey ndjay sey mam Sey Ndiaye bàyyi Moussa fal bay Sëriñ Assane fal gañal yoon wi mom du yalla way da ndurug yalla ay melokan waw suma noppee ci kaaraange ngi Cheikh Ibra ci limi aré ab jaam lu ko soobu du dem bay Fall lu ko soobul Baye Fall lu dal mam lu ko dal mam Cheikh la bay Fall bu ñàkkee mam Cheikh la bu amé mam Cheikh la yalla sañ ñoo ray sañ ñoo lak dañoo jinn ci yalla ban jar Cheikh Fall dañoo jinn ci yalla ban jar luñ dal Cheikh Fall loolu de ko doxé yow bay Fall de ko doxé so bëggé yegg loolu dal Cheikh Fall yalla sañ la ray sañ la lak sañ la ñakkal loolu dal Cheikh Fall bay Fall ba ñuy doxee fasu tranquille mom Baye Fall bi lu ko dal Cheikh Ibra su ma la waxee kaare ngeeg Cheikh Fall ma wax la gaawaayu Cheikh Fall gaaw gi mu gaaw loo koy woo na nga ko xam ma ni looy woo Cheikh Ibra na ko xam ndax gaawaayu Cheikh Fall nee la jomm naa ku may liggéeyal di torox ci barab man Cheikh Fall ku may liggéeyal di am gàcc ci barab Cheikh Fall nee la jomm naa ko. mané léral leeral ci kan Cheikh mu dëb dal jam nar bu sat nar bu nar bu sant faal ta sàcc la fek ci pinch nar bu sant faal sàcc mu fek ci pinch mi ñu wat lo nar bi teg ràbb gu xonku tay ci tal di togu gi ba gu ñor xom ko nar mar nar bi lu mu koy mar da sàcc ñukoy wat lo nar di ko wat lo ni soko maré bam sen ñu xamni mu dem dal dem jaar fa ñu sant ñu ko faal mu ni satchu ñu ko tax mu ko sant faal du satch man cheikh faal ma yoni mu joge ci ko sant faal gis ko sant faal du ma nangu ni satch na ñu ko ginaaw kon fàccul ginaaw satchu watal ko cheikh mu dëb dal dàmm ne nan la waxe watale ñu ko rabbu gi ngay seet loko japp ci tal bi ta mar ko bu sedde nu xamni ne mu ne ràbb gi lay japp du ko japp dara rabbu gi ginaaw sama lam ñu la jëm ñu naa mu ne ci barkeb seen afal laa koy jàppee cheikh mu dëb dal dal na ba kef seen faal ja sabu ga mat rab ga ba set sedd guy mu yuuxu dal na sour mom sey ngay dikri gor ni yaa mën fii yaa mën fa lu jëm ba ko sàllee xam fu dal dal di këf nar bi ne ko nan dem raw nga andi nar ba ci crossement ba jalale ko ne ko sant fal gi ma ci intéressé man la gintu woom nar rasulaay may sama sa taxuma juk man sey faal rek la gëmbal lol la xol cheikh mu dal jam ko ko gëm ni la ko rasulullah ya, messam am taxuma juk nar bi sacc gi taxuma juk man fal gi nga sant rek ma taxa jog rawal na la ngir sab ngir fal ngir mam seray ma fal mu deb na jam woñeku del fat mam seray fal ci keur ga seray fal bam ko seeli mu ñew ne ko ah, na mu deb del jam mu ni fal mu ne ah, do sacc ko rawal sacc la ah, a mu deb da ngay jam sant mu deb da ngay jam sant a mu job yaa uteeg man dom bindal mbàkki ak mbeng ak bukki top ma ci kenn bu bindee bakki ak mbeng bu kéem képp amu tëbtal jam xana xamul topp ma Mbàkke amu tasrif ja ja sëñ ba rek mo jam ni ëllëg lay topp amu tëbtal jam ba topp sant mu jëw an sa wat ga dom ya wat ba wat am ma wat mu ko faal man day la la macc tegu mu jóg mu ni faal mu ne dom ba ko an rabb ga mu ni faal gisuma ràbb ga Cheikh Ibra Fall ràbb gi ci njegenaayam ni ko mu jóg mu ni faal mu ne a ah, doom de moo suñ ko jar mu jóg mu ni faal mu ne yoon mu meles xel waaye meles a gaaw man Cheikh Ibra Fall yoon guy jëf meles guy jëf maa ko gën a gaaw man Cheikh Ibra Fall moo tax ab Faal balaa dogu na ko seet balaa mere nit ko seet kon bi ngeen nekk dëkk bi ngeen nekk ngeen fi nekkal delul mere koo woo ci bamba ji ñëwut jarul mere koo woo ci maam Cheikh ñëwut jarul mere koo mere mu yëg ko te koo foo woo si defal mu ñëw kon Baye Fall na dëggal na xam boppam li xew léegi ci Baye Fall gi li xew léegi ci Baye Fall gi Baye Fall ba mu fula dañ ciy génn Baye Fall noobul la Baye Fall noobul la lu tax ngay mel la neex lu tax ngay nangu ñu lay xeeb te sëriñ ñi gën bu ko nangu Baay Faal noobul la Seera Faal a gën ku yàlla bind ndax boo liggéey dix minutes yooyu de balaa dix minutes yi àgg nañ ci waxtaan ci Seera Faal ba noppi nan ñu may di nan ñu may quinze minutes rek dolli ko ci ci dix minutes yi ma ne ndax fa may wax yéen koy dégg dama ne Baay Faal noobul la noobul lu tax mu nangu ñu koy yëpp xanaa xamu ni koo gis muy jaamu yàlla ci kaw suuf Cheikh Faal a tax nee na suuf si la wër Cheikh Faal nee suuf si la wër suuf si la wër liggéeyal fi yàlla ba matal soko del waccat sëriñ ma ngay ji ndeyam ndax mu gis sëriñ ba am àq ci mu ko tuba yaqulu atul mu taxara xaqiqatan tuba moom moom aqiqa moom moom sharia sëñ tuba ñëw ci seerafal ñëw ci moom ngir jënd ko ci moom jënd ko ci ngir dimbali ci fi yow ki tax ki tax ñu dimbali ñi sa ne bay fal kenn ko yeb ki tax jam ñep am jam Cheikh Fall la te dama bëgg ni diglu baat bu wax sëñ ma sëñ ma Samba Ndiaye wàq dali ma sama Ndiaye wàq mu ko Fall mu ko njëgal jam yang sama loxo ma sama Ndiaye wàq mu ni Fall mu ni jam ñi bu leen bayiwon ak yalla fu ñu jëm ma sama Ndiaye wàq mu ni fal mu fu rek ak warax lu ci doomu mu mën lu ci malaaka mën diggante përëx ak warax lu ci doomu aadama mën ak lu ci malaaka mën nee na Cheikh Massamba Ndiaye wax ki nii dama ne bërit ne ko Fall looy bëgg a wax mu ko damay leeral sama diggante sama borom ak sama diggante man maag yàlla ak adama ak doom ba mu sexoon ma sama Ndiaye wax ki ne bërit ne ko Fall loo wax mu ko aadama kerek ba mu ba mu naxee ba awa naxee ba awa dee jooy mu koy jéem a nax iblis ruux leen bañ fat doom ba moom a lekk doom ba ba mu ko lekkee mu jàll ba aadama lekkee doom ba doom ba demoon na bay bëgg a jàll yàlla yemal jibri jibri na ko man doom ba xajuma ci ndax diggante boo ma bëggee dégraté ci doom bi kepp di nga ma dégraté ndax diggante pour ak wax man ab jaam laa dana ko ba sama njay wàq mu ni faal mu ni man rek maa xam sekke yàlla maa teg sama tànk àjjana man Cheikh Fall maa xam koñ ye man aadama maa xoj aadama man nangu doom ba Cheikh Fall nee maa aadama man nangu doom ba déggoo nee mo xoj adama mo nangu doom bi njëgal gan ci loxol sen fal doom bi nga xam bu ko adama doon su ko adama won non yalla do su jégal ku yalla bind doom gan ngi ci loxol seex ne ko ba sama njaay wax mi ko fal mu ne ko mo tax ma ak adama gay ak maxtar tur ci ndax jor jik ba yàgg garab sax sen digeunte diggante seera ne bama ma ci kaw garab gi doom ba laa doon delloo nii ni yit na wa delo doom ne ko jang ma dakk ci suuf booba iblis samay kar ngir bañ dom ba delu ndax jaam ñu ba dem jéggal ne ko adama gi dama jibli buum ko seug bamba adama dama xol ba yagg mon ko adama jiblul ay adama waxa sa borom mu jéggal la bi seug bamba ne adama gi jéggal na la mbàkk jéggal lu xàppate ko jéggal na la mbàkk jog guy yi daanu garab yi daanu jur gi faatu mbaar yëpp tasaaroo bi seug bamba ne adama jéggal na la cheikh rafal ne adama da jéggalu maa jébbalu ma ne cheikh rafal ne adama da jéggalu ma jébbalu cheikh dafa la sant ana wu jéglu cheikh ibra jébbalu ndax jam jam jam nañ na gay bàyyi xel lolou adama dafa jébbalu de jéglu adama dafa jéglu borom waaye jébbalu cheikh dafa la jébbalu ton gi sa ton gi jam ci yoon sa borom cheikh dafa téye ko mu dom da ko ajak ci kaw garab ga ndax yalla nitam yalla mam mam cheikh dafa la ko jot cheikh dafa la aj garab ga ajak dom ba ci kaw garab ga dag jaan joojee moy iblis mom cheikh dafa la kon ndekete Cheikh Fall moom njëggal moo tax mu ni duma leen wan nan la ba noppi yem ak yéen Cheikh Fall nee na duma leen wan nan la ba ngeen la may yem ak yéen moo tax nee na boo liggéey Cheikh Fall ne boo liggéey bu tëggi na dëkkee bu góor yàlla yëpp taxaw ku ne taxaw penku riir soowu riir Si fa neena nga gis suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala bak bakam wa suja jitu suja jaakana ko ko dirin su ko suñu borom bakke ba wértalam ya sera neena su boba ko japp ne moma ba nga dem ni ko yawa sera neena teggam ja mu miri ci aduna yam ma sama ngay wax mu ko fal mu ko su boba ma dakke ndanda fal bakke be mer ma dakke ne yawa mani mana buñ ma dakke ne ma yawa mani mana su boba yawa kenn koy wax mana kenn koy wax adduna ku mu neex ni mën a waaye bu ndekkee kon yow mu lu du man si la fa rekk nan a bu ndekkee ëllëg si la fa képp nan a mu tax moom rek a sañ li mu sañ te it ciblise ci moom la yem Baay Faal bu ne war naa roy maam Seex Faal ci ciblise ndar gi la nekkoon ndar sëñ Tuubaa def ko ne del dox bëccëg del dox guddi te dal lu bëccëg su ma sàlla génn ak taar bi jigéen ñi dañ daan dagg seen loxo yi ak muñ mi ñu koy woy dekk nda ñeexiree bàyyi lalla fal ak jéemaam Cheikh Mour Fallou te dama lay xamal la fu mu mës a dëkk da ko tiiti foncé ndar la fal ba Kébémer tukku ba ndaay pisineer boo demee pale maam Cheikh ko moom da koo tiiti foncé bëri yi bres dañ Cheikh Fall ko moom ba Sandaga garab gam daan yendu maam Cheikh da ko moom moo ko titre français soo demee ba kees maam Cheikh Fall ko moom da ko titre français xoolal Cheikh Fall suuf si mu moom kenn mënu ko lim moo tax fulla ak personnalité ak yow ak am xel Cheikh Fall la fekk baax moo tax mu ne la gën a la xel di xel xel yi nga tag loola doom duma moromum xel cig la ne ku noppee yëg noppi nga xam Cheikh Fall ku noppi yëg noppi nga xam seex yoon te dama lay xamante la fu mu mës dëkk da ko tiiti foncé ndar na faal ba Kébémer tukku ba ndaay pisineer boo demee pale maam seex ko moom da ko tiiti foncé bëri yi beres jaañ seera faal ko moom ba sandaga garab gam dan yendu mam Cheikh ko mom moo titre français so demé ba caisse mam Cheikh Fall ko mom da ko titre français xolal Cheikh Fall souf ci mom mom ken mënu ko lim moo tax fulla ak personnalité ak yeewu ak am xel Cheikh Fall la fekk baax moo tax mu la gën la xel di xel-xel yi nga lolo dom doom duma moroomum xel ci glané ku noppé yëg noppi nga xam Cheikh Fall ku noppi yëg noppi nga xam seex xew moo tax Baay Faal mooy lan bëgg yàlla rek ci bëgg yàlla képp lañ rawee ku yàlla bind ci bëgg yàlla moo tax Cheikh Rafal nee na góor yàlla yi beneen tegee fii leen yóbbu xamoon naa ne doom daa am ñu rot beneen tegee fii leen yóbbu doom xamoon naa ne daa ñu rot way naa fi sama njaboot suñ leen tëkkalee njabot señ bamba bañu fam njabot señ bamba tek ci kaw wacc sama njabot ala su boba àdduna ku fi yegati wacc bul fop muku sëtub señ bamba tek ci suuf fop sëtub maam Seex rafal wacc bu ko jéem de lo jiñ señ bamba giñ ko nyari Faal ñaari jëmm kenn lo señ bamba giñ ko cheikh Ibra ñaari kenn te cheikh rafal moy fi suñu tekké fële ci maam cheikh ñu dimbali xool cheikh mako ko dëgg see ba muy woy njëriñ wa fii xelal nabi usmaana yasfu fi sab'ina alfan kulluhum aqwa naaran si dafa dekku ne àddoom mukk du kase lu suñ bamba wax ah mukk du kase lu suñ bamba wax lu ko suñ bamba ni la sidna usman juróom ñaar fukki ñu góor lay lam mu yomal xiyam yo xamne sawra sawara yee neen mu ne xalaas doom xalaas doom ah doom ni mo neewlum jël jegoo seera eh, fal de adam doom ousmane moo néew jël donc fakku mu tal yalla teg ay engrais mooy sak juróom-ñaar fukki at ousmane moo néew jël mo ko du kasse mu ni fal mu ne adam xol sama njañ li ben njañ bo ci teqi fa fa adul la min ne asmi 6024 mille yonent yi ak 6106 ay yi moy lim karaw ben karaw mam Cheikh Fall bu ne soko ko moy lim ba te ngeen urus la moom Cheikh Fall ma ko do kasse mu ni ko fal mu ne ko ëllëg benn kerew bu ne ku sant faam da ciy jàpp ku sant faam ndax la faam niroog faal ku sopp mbay faal ku soppoon sëñ Bàmba ak ab jullit bu doon dara ak murid saadix ak koo xam ne du murid saadix Sëriñ ak jullit boo xam ne ab jullit nga waaye da ngaa waye di ak murid boo xam ne da ngaa xamul sëñ Bàmba ak bay Faal boo xam ne da ngaa xamul li xew ñooñee gaa yooyu yëpp la Sëriñ Faal préparé ci kerew bi kenn ko di nga ci langaamu ba fees nee na su ma soo ko jàkkale sëñ Bamba damay maam Sey suuru maam Sey Ndiaye bàyyi Moustapha Fall ak Sëriñ Moustapha Fall Kajoor yoon yomal xiyaam danga waaru jébaloo ku jébaloo war jiitu ku jébaluwul yomal xiyaam danga waaru ku jébaluwul yow ma xiyaam da nga waaroo ñu waxtaan ci bëgg sa sëriñ waaw asidqu fi mahabbati cheikh abad bëgg sa sëriñ ma ne ndax xam nga ne bëgg sa sëriñ mooy àggal ci yàlla jaamu yóbbu nu de nangul gi ñu nangul waye yalla yi mo ñu yobbu waye jaamu gi yobbu ndax jaamu gi da tak jaamu yi dafa tak jaamu yi dafa takk lool tak lool la def kon nangul gi ngay nangul waye yalla ci li ñuy yobbu waye jaamu gi tak mu yobbu la ndek ci nit nit ndek ci nit bu amul leer amul makkan du taxaw nit day am leer bu muy dundé ci yalla am makkan am wasila mu wiru mën dem lu bo demé ci ma faatu bisri sëñ touba di ñaan yalla bo demé ci ma faatu bisri sëñ Tuubaa dala yàlla nawir na nga leeral bi jaay il Moustapha ci dara ji Moustapha ma mari sama dox wu maj la si sama jekkuwaay wu maskini sama dëkkuwaay wu birri ak sama naan waay nawir bi jaay il Moustapha ma mari wu maj la si wu maskini wu birri niki nit day am leer am makkaan am dëkkuwaay soo ko mën a dara ci yàlla kon asidqu fi mahabbati Cheikh Abad ndeke nekk ci bëgg sëriñam lay àgg ci yàlla waaye nekk sa bunt ci sëriñ Tuubaa moo lay àggale ci yàlla ku ne sa bunt ci sëriñ Tuubaa lay àggale ci yàlla waaye sëriñ Tuubaa jàngal na ak la lan mooy ak bëgg ni mel ci yonent bi la Cheikh Fall mel ci moom tubaab bi joxul sëriñ Tuubaa posam xooyul posam jox ko sëriñ Tuubaa ni ko yonent bi la ko jox sëriñ Tuubaa ne kas-kas bi njool makk ni ko yabal sidna jibril ne ko waxal mustafa ne ko kas bi doxuma ko sëñ ne ko bu kas bi lor nama lor bu kas bi jariñ nama ma jariñ ndax ko naan ngir jol makka fa bu kas bi naan mahad ma batil muxtaaru hubbil mahaniya wal akhdida wal walada dami wa akhli wa hawladi fi dawlahu abdul khadim lahu muskana sada nan kas bu mu jeex tak mu tek ko sëñ bamba wolu cheikh mourou fa ko jangalo marahi mu jàng ma raxi ba àgg ci wajaxal bihi nas mi fawqa saw mi wa xayrihi ma ne taxat law mi sëñ dale ko Moussa loo bëgg ma defal la ko mu ne tekk ca taalibe ne Moussa dama uti mbaar dama uti ay bant daal ma sama mbaar mi Cheikh Fall yëg ko ci baatin xam ne Cheikh Mourou Moussa Fall day laaj mbaar mi mu génn moom Cheikh bi la dem ba sëñ ba jóg jënd ay bantam jóor ko ci kër gi sëñ bi waaye tëll ko Ibrahima looy def mu ne ko xanaa daaj mbaar mi bañ koy diggee ci asal maag yow booba doom juddu rek màggul ba ñooy diggee mbaar mi yow maag yow ci asal booba doom juddu rek màggul damay daj mbar bi seigne Baruk ibrahim Moussa wala ko sant mu ko mbar mi maa daj seigne sëñ ibrahim Ibrahima Moussa laa ko sant mu ne duñ ko wax ñaari yoon fa da wagne ko di xol Cheikh Mourou Moussa Fall xam ne moo daaj mbaar mi muy dem ba yag ne gess ko ah Moussa ah doom ma xamone ma takki as si la jëlul si la nga dox sama dégg sëñ Bamba dama lay mëdd kon doo aduna a àdduna ah Moussa Fall li jarna na yaradal dom du dom bu dox sa dégg sëñ Bamba ah doom jar na yaradal kii bëgg sëñ Bamba Mudah sop nabi na bi amul seigne bamba sop na bi waaye bamba amul seen fa rek sop bamba ku yow uta sop ku ne uta sop ci bamba ji mune maye kala neex seigne bamba ko wax maye kala neex ñu ne kula neex mune mam Cheikh antama neex may na ko dama neex dinkane ko wul cerno la wul dink na ko xam ne ku la sopp ma sambalaa sopp moo ma sopp ma xamal ko waaye li ma semul du ma jox kenn joxuma ko waaye jaay comme nit ñu comme nit mooy sëru maam sëñ Ndiaye damay maam sëñ Ndiaye bàyyi Moustapha Fall bàyyi sëru Assane Fall dalal yoon wi Cheikh Ibrahima am nit bu jaay ko jaay ku neex waaw waaw barki maam Cheikh Fall Cheikh Ibra am njëg mu jaay ko de jaay ko jaay ko am njëg Cheikh Ibra am njëg mu jaay ko. ku sopp Seex Ibra Faal la ilaha illallah gën faal laa ilaaha illallaah addiya maam sera tey waaw waaw bay leelu dëggën njaay Amadou Fall ma ca càngee bay leelu dëggën ma ni njaay ko am njëg nga koy def Cheikh Ibra am njëg mu jënd li suñ Bamba yoroon coow li amatul ku yebu rek dem maam seera Fall jaayante ak moom waaye lu ñu fi jaay si newu fi sëñ Bamba lu doon dénkaane la am dégg na ko Ceerno lu mu doon xam la la xam ma sàmba la ko xamal lu doon maye la Cheikh Anta la ko may li doon jaay rek a fi des Cheikh lu moom Sëñ Njaay la ko jaay kuy jënd da ngay jëndanteeg te jaayante woo Cheikh Faal faat na ma ni digoo leen ma ni làqati yàlla ci sa xol mbaa ngay amati yàlla ci sa xol te jaayante woo Faal faat na waaw loolu faat na Abdou Karim Touré mu ko Mbàkke mo ko fa sa loxo teg sa bët loo mën a gis la faara raw Masamba mo Sarr mu ne ko Mbàkke mu ko fa sa loxo teg sa nopp loo mën a la raw moo tax bis bi bërëb ba fa alfan di magal mu wacc gi maam mu mujj wacc waxuma oh, la wacc de wacc gi mujj wacc tay ku fi sa serigne wacc nga ne ko cheikh na mo meuna a ndax li muy jàngale ñu dégg nañ ko xoolal Cheikh Ibra waxuma la université Cheikh Ibra Fall mooy adduna mooy àllaaxira xam-xam maam Cheikh rek ko maam Cheikh rek ko mën jàngale ndax mos de ku fi wàcc ba sa sëriñ wàcc la da ngay seex ku sa sëriñ wàcc nga seex ku sa sëriñ wàcc rek nga seex moom sëñ Tuubaa da koo wàccee muy jooy Cheikh ma sàmm Fall ko bind nee na bu toppee àll bi jooy ba yàgg. daa ma sama xol suñ bamb weer na ma mooy bañ ca kanamu yàlla defoon naa ne bu suñ bamb ma di ko wax jàmm ñi mooy bañ ca kanamu yàlla ama sama njay wàq sama tuuma ji feeñ na suñ bamb dàq na ma suñ bamb génn na ma mbaa xam nga xajutul ak sama bon bi ñetti guddi maam sefa topp àll bi jooy seex mu fal alxuraan la sëñ Tuubaa yónni woolu ko ne ko wool ma seex la fal dox gannaaw bu ko doxee kanam ndax fu mu jaar yoon la bu tukkee yëpp ay mbedd la woon bu ko bu jógee nga lay fiir muy wàcc gi maam seefal mujj wàcc waxuma la wàcc de wàcc gi mujj wàcc tey ku fi sa sëriñ wàcc nga ne ko seex naa moo mën a jàngale ndax li muy jàngale li mu dégg nañ ko xoolal Cheikh Ibra waxuma la université Cheikh Ibra Fall mooy àdduna mooy àllaaxira xam-xam maam Cheikh rek ko am maam Cheikh rek ko mën a jàngale ndax am mos de ku fi wàcc ba sa sëriñ wàcc la da ngay seex ku sa sëriñ wàcc nga seex ku sa sëriñ wàcc rek nga seex moom sëñ tuwa da koo wàcce muy jooy seex ma sàmm fal ko bind nee na bu toppee àll bi jooy ba yàgg jaax ma sàmm fal suñ bamba weer na ma ba may bañ ci kanamu yàlla defoon naa bu suñ bamba ñii di ko wax jaam ñi ba may bañ ci kanamu yàlla ama ah, sama njay wàq sama tuuma ji feeñ na suñ bamba dàq na ma suñ bamba génn na ma mbaa nga xajutal sama bon bi ñetti guddi maam Cheikh Fall topp àll bi jooy Cheikh Mourou Fall alxuraan la sëñ Tuubaa yónni woolu ko ni ko wol ma Cheikh Fall dox gannaaw bu ko doxee kanam ndax fu mu jaar yoon la bu tukkee yëpp ay mbedd la bu ko sëñ Tuubaa wooyee bu jógee nga lay fiir Mourou Fall alxuraan ana Cheikh Ibrahima ko mu ngi nii Ibrahima lu yàlla bindee wax ak yow doo ko dégg sa nopp yëpp sakk nga doo gis doo dégg ku du man waaye Ibrahima lu yàlla bindee wax ak yaa ko du dégg tey utal ma fukki jil ak ñaar serafal top all bi di wut fukki jil ak ñaar way di wut serafal garab gu mu jup bu tuddee yalla mag rasulullah bu tuddee yalla ba mag rasulullah ba sant señ bamba serafal dalay won gannaaw dula gor ba fukki garab ak ñaar mat ñu dal señ bamba di joy ci tuwaane ko ibrahima kenn ma sëgg ci sasu boy ken ma sëgg ci sasu boy ibrahim ala jinn ya mu ko am ah, mbàkke yalla jaxaluma garab gi lay tudd yalla yàlla jaaxaluma bu ma bàyyee ku mën baye yalla baye yonent kon yonent bi jaxaluma sa bop ke jaxaluma ndax ku baye a mana baye ngettel bi say bok jaxaluma ñoko ñentel ñeenteel mbakk jëmb ji ko juromel moma jaxal garab ga day tudd sëñ bamba a garab tuddu señ bamba il fal gor ko ta ne señ tubaa ko garab bi dal wax yow ya ko du dégg way tay ji nag ci sa noppi ubbi ko sa wacc gi mat sa digg yalla leer nañ nga kenn yalla yalla mi kenn tay ne kenn ngeen señ tubaa bi ne bërët dafa tolloog seen jëmm yi tolloo seen kaala yi tolloo am suñu taxati daal di yéexu fekk sëñ Tuubaa fa mu toog dama bëgg mel ni am suñu taxati daal bëggatuma mel kenn dama bëgg mel ni Cheikh Ibra sëñ Tuubaa am suñu loo ko mel ni Cheikh Ibra gis naa seen kaala yi di benn seen mbagg yi tolloo seen jëmm yi tolloo seen karaw yi jaxasoo xàmmeetuma ci kenn mu ne am suñu taxam mooy Ibra Fall fi ma ko teg dama koo teg ci mbaq sànni ko fam ne jëfal yàlla yóbbu dafa góor ñii njëkkante laa koy wax foofu la tëjee waxtaan wi ñii njëkkante lay wax ni fa seerafaan nekk jëfal yàlla yóbbu dafa góor yàlla yóbbu ci góor fa seerafaan ne yàlla sama borom yóbbootul góor fa Seex Ibra ne ginnaaw kon ginnaaw ku jëfal yàlla ku jëfalul yàlla dootul yóbbu fa fa ne kon nañ jëfal Seex mooy jàmm kon jam ñu ñu xey ci mam Cheikh rafal gol ci Cheikh rafal ndax juma je nga xamni bo liggé seug sëñ Tuubaa ne moom la ñuy représenté ci kanamu yàlla ñëpp xadimaay xadim muy banal liyal baqi bina al baqiya bi xëy al jal raqiya tabax bo xam xad xar du fet du max Cheikh rafal ne mako taw taawu koy taw seug ba ma ñett junni at taawu ba moom jumaa ji urus bala taw man Cheikh rafal mo do seug Fallu makki jël sorol bi tudiko ko Cheikh Fall ndax mom mom juma ji kon Baye Fall bi war naa xam Seere Fall mooy kan Baye Fall day pànk am fayda am fulla gëm li mu gëm ndegam rappeur yi ci mbedd mi ñoo am fulla ñii sol mini am fulla ñii sol body am fulla doom fulla ci sa sa laxasaay gi ngay takk doom fulla ci sa njañ yi mu saq doom fulla ci sa xiin bi ngay bàkk lu tax nga leen di xool lu tax nga leen di gestu amal fulla te am fayda te dox Baye Fall day personnel te am fayda te dox doxal ci lepp ndax yalla ngeen ci la nga ne te la nga ne wéy te ñoom lañ ne dañuy dëpp seera faal ne ñëpp may fekk ci duma fekk kenn sama yoonu da daal lañ ko fekk ci du fekk kenn yoon ñi moy yoon wi gën ci yoon wi te yoon yëpp lañ fekk ci yoon wi te yoon lu fekk wenn yoon mu melni ne kon waxtaan wi dañoo wax ni temps bi mat na waaw temps bi mat na waaw temps bi jeex na mu mel ni kon sama mbokk soxna yi rek laay wax ne leen ñu xam ne sëñ Fallou Mbacké nee na asamaan saa ngi nii di jooy guddi ak bëccëg wala yàlla yi bëgg a wàcc liggéeyal yàlla waaye amuñu fu du jaar ñàkk ndey lañ tey judd sëñ Fallou ko wax nee na ñàkk ndey rek ñàkk ndey dong ñàkk ndey dongul de teewal yi judduwaay wala yàlla yaa ngi jooy guddi bëccëg mu koy dégg waaye man fàllu waaye ñàkk ndey leen tey judd suñu amoon ndey ba tey wàcc na leen ginnaaw ñàkk ndey leen judd nag kon jigéen ñi nañ doon ay yaay faal te jox seen bopp baay faal yi ndax ndax ndax wala yàlla yi wàcc loolu daal laa xam man barke maam si faal mu mel ni sallallahu ala muhammadin nag waaw <laughs> sallallahu ala muhammadin wax muhammadin waaw soxna yëpp laa bëgg ñuy wax sallallahu ala muhammadin di ko wér ndax moo gëm ci yéen salaatu boobu sallallahu ala muhammadin barke maam Cheikh Fall jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf Fall barke Cheikh Fall jaa ngeen jëf <laughs>